football fi mu egg tey kenn mënu ko fa teree egg parce que industrie la industrie la enjeux yi ñoo bari y a des en y a beaucoup d'enjeux yu nekk ci biir football mm. tey ku am sa doom doo ko yóbbu basket doo ko yóbbu athlétisme doo ko yóbbu fële tu préfères yóbbu ko ci école yi mu football parce que moom mooy générer xaalis bi parce que bu gaynde yi demee football ñëw Macky Sall leen may leen ku nekk 10 millions ku am sa doom sa kër sañoon ngaa am loolu mm-hmm. surtout ku am moins de 17 champion olympique nga jël ko. Mm. boo ñëwee man ngaa bañ a am loolu. autant ñi ko fi def amuñu ko. léegi loolu pour. non euh, du question xeex. Ah. xam nga dama lay expliquer rek. du question xeex xam nga réew dafa am nu muy doxee. dafa am lu ñuy wax la politique sportive. Mm-hmm. état am ay euh, am programme. tey tous les sénégalais sont d'égale dignité boo gisee discours. Macky Sall bii mujj. Mhm. mu recevoir Lions yi di jox leen dix millions lu mu wax tous les champions sur les cinq dernières années dama leen di primer ce qui veut dire que mi ngi changé. ñi ngi commencé comprendre que ne les Sénégalais sont d'égale dignité. Mhm. tey dafa am ñu nekk 7TV am ñu nekk beneen télé am ñu nekk beneen télé am ñu nekk beneen télé ce sont tous des journalistes. sportif bi nekk basket kii nekk football kii nekk tennis ce sont état bi ñi ngi koy xam mais état boo koy wax doo xeex da ngay wax mu dégg parce que ñi nekk à la base les fédération baromètre lañ tey ci ministère des sports. Hmm. donc notre tremplin at avec l' état c' est le ministère des sports. Hmm. et le CNOS ñoom ñooy xam li ñu xew ci fédération yi jég ko yëkkati ko. jébbal ko hmm. ministère de sports mu jébbal ko état ñu dugal ko seen politique sportive. mais mi ngi changé des na nag. yàlla na jëm kanam. donc ni ñuy jàppalee football bi. tey li def ci football bi ba ñu egg fii. suñ ko defoon ci basket bi mën naa basket bi mën naa def lu raw li football bi def.